Assalamu alaikum bienvenue sur CTGHT sama gars yi tey dama bëggoon ñu wax si ñi nga xamante depuis mise à jour téléphone dafa am problème un téléphone arrêté ou lui def ay bug et franchement pour wax leen iOS 16 officiel voilà mais am na ñeen si ñeen ñoo ni iOS 16 officiel bi franchement arrangé parce que depuis bi ngeen installé, installé un téléphone calvaire parce que mënatoo leen utiliser seen téléphone normalement mais dafa am leen loo ni bëgg naa leen alerter déjà iOS 6 ko installé dafa am travail bu muy def si sa biir téléphone analyser say données yu nekk sa téléphone surtout bu fekkee ni da nga am ay photo ay ay contacts yu niroo loolu pour da koy analyser benn par benn ensuite les mu door lay demander nga fusionner yow say photos wala say vidéo yi nga xam te am nga ko doublon si sa biir téléphone et loolu noonu dafay jël travail bu bëri parce que fonctionnalité bu bees la si iOS 16 en attendant sama vidéo truc et astuce iOS 16 bi di génn dama bëggoon juste ngeen xam ni loolu mën indi seen ralentissement de son téléphone mais amna si yéen ñoo y a un téléphone dafa am problème application wala un clavier doxul wala ay problème yo xamanteni franchement mo gën sérieux lu melni vous len un appareil photo day noir et pourtant bo len jëlee photo mu jël photo donc problème yi bëri na ku nekk ak nu manifester donc ma ni pourquoi pas ma def vidéo wan leen nan ngeen di def ba quitter iwcs en attendant muy gën a stable yow si sa téléphone bu fekkee ni da nga bëgg vous downgrade djugé iOS 16 delu iOS 15.7 point vidéo bi dama lay wan nangé def ba def ko donc sama gars yi dama len di conseil bala ngeen di def downgrade dama len di wax juste ngeen sauvegarder ses données c'est très très important pour sauvegarder ses données franchement dama leen di wax ngeen utiliser logiciel bi di iCareFone dama len di recommander logiciel yi di logiciel Tenorshare c'est juste que dañu stable et itam dañu neex utiliser def lien de téléchargement gratuit ci description bi dem leen ngeen télécharger ko pour sauvegarder ce téléphone li ngay njëkk def moy da ngay connecter ce iPhone ak ordinateur bi ensuite li nga lancer logiciel bi di iCareFone nga ñëw fii ñu bind sauvegarde et restaurer ensuite li nga bëss fii ñu bind sauvegarder. léegi bo ñëw fi da ngay sélectionner données yi nga xamanteni mom nga bëgg sauvegarder bo ñëwé di nga gis mu def tout sélectionner ensuite il que ngay def mooy da ngay juste sauvegarder léegi boo bësi sauvegarder di logiciel de sauvegarde données yu nekk si sa iPhone en quelques minutes Si vous sauvegarder sa donnée ba tu da ngay Google rechercher IPSW iPhone le texte sur sa iPhone IPSW iPhone 12 mini comme que iPhone 12 mini ensuite vous nga le résultat bi nekk comme que ñun dañu bëgg dellu ginnaaw dañuy dernière version avant iOS 16 iOS 15.6.1 ensuite vous nga ñëw nga bëss download pour télécharger ko léegi bu télécharger suñu logiciel ba paré ensuite léegi dañuy dem lancer reboot reboot dafa nekk le logiciel qui permet de permettre nga réparer plus de 150 problèmes yo l'iPhone. Et iPhone et logiciel bi permet ñu permettre ñu rétrograder suñu téléphone delloo ko iOS 15.7 facilement da ngay ñëw nga bëss commencer ensuite vous ñu bëss fii ñu bind réparation standard léegi bu ñu ñëwee fii dañuy bind importer un fichier local fii la ñuy bës ensuite léegi nga dem téléchargement ensuite léegi nga sélectionner fichier bi nga xamante ni moom nga nekk di télécharger di nga gis ni logiciel day extraire version bi ensuite léegi yow leen da ngay def da ngay bës ci commencer la réparation standard léegi nga toog xaar di nga ce téléphone dafay delluwaat iOS 15.6.1. donc sama gars yaakaar naa ne vidéo bi jàppale na le bu fekkee da nga bëgg downgrade delluwaat iOS 15.7. en attendant ñuy corriger problème yi nga xamante mise à jour iOS 16 bi indi na ko si yenn mais pour ñi nga xamante ni ñi ngi si iOS 16 dama leen di wax vidéo truc et astuce bi mi ngi déjà def naa vidéo truc et astuce di wax si écran de verrouillage bi partagé leen ko au maximum fekkee ni seetaan goo ko demal nga ko et pour ñi nga xamante dañuy xaar vidéo iPhone 14 bi dama leen di wax juste posé leen ma question yi ngeen am yépp ci iPhone yi iPhone 14 Pro Plus Pro Max lépp wax leen ma ko ci commentaire bi parce que vidéo boobu dina ñëw incha allah mercredi donc du ma def leen lu dul di leen di jox dig daje ci samay prochaine vidéo incha allah allez